da gis tey ñoo xamante ne duñu jàngi te xamuñu dara ay boroom kër lu tax parce que ñoom nee nañ bëgguñoo jàngi seen seen sutura tey di xaaweeku te moonte fii am na ci ñoo xam ne tey mën nañu jàng ci sutura mën nañ jàngal ci sutura yow mii sunu waajur bu jigéen am na ci ñoo xamante ne fii tey mën nañ la jàngal nga xam sa diine ci sutura waaye xam nga ni waxuma sax nekk mu kallaf waaye doon yaay bay dégg maam am na ci ñoo xam ne baal leen ma hmm? bu ñu taree da ngay tiit da ngay jàpp ne yow alquran bees tàq la ñuy fabriqué hmm? kenn du leen jam xalaatu ko kenn kenn du leen jam xalaatuñ ko parce que ñooy sunuy waajur waaye nag dañoo bëggal sunu bopp luñ leen bëggal kon laazim ñu waxante yéen li nga xam ne moo leen di jariñ te seen jariñu boobu mooy sunu jariñu parce que ëllëg ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ñun ñëpp dañoo bëgg a ànd mucc te muccute nag dafa am lu koy maye mooy sabab lu jëm ci قال ربي إني وهل العظم مني واستعل الرأس شيبة ولم يكن بدعائك ربي شقيا